ñoo nekk seen TV dama ko dessiné bu yàgg ñu linge ma fu nekk nag linge ma linge ba am na ñu sax sama ay mbokk pas-pas lañu ci wàllu diine dañ ma doon linge waale ba ci ba daje sax ci confiance am ku ma ciy menacé fekk na daf ci dañ ci demee ak émotion alors man je suis apolitique du ci demee émotion dama ci demee lecture benn bi ci des Ousmane Sonko maa ngi moom ñoo maase kon nu mu mën a ëppee xam-xam ci wàllu politique Barthélemy Dias maa ko mar kon nu mu mën a ëpp xam-xam ci wàllu politique Ahmed Aïdara maa ko mar Déthié Fall maa ko mar euh, Babacar Diop maa ko mag Bara Gaye man maa ko mag est-ce que ñooñu mun nañ def ci politique man lu ma munta jàngat lu ma munta xalaat li ma leen waxoon musuma utiliser coalition dama musa utiliser da ngeen di jaay Sénégalais yi benn dynamique baat boobu laa mus di utiliser ak da ngeen di jaay Sénégal yi benn dynamique xam nga dynamique mooy lan ñu jàpp cest à nga ne jàpp ci catu élastique bi ma jàpp ci catu élastique bi ñu xëccandoo kenn du bàyyi bi ñu demee Tiwaawan suñu surface da leen ni seen ànd bi képp kuy gor mën na cee bokk képp kuy gor mën na cee bokk dañu delluwaat ca baatu gor ba nag képp kuy gor mën na cee bokk parce que waxu leen ñoom ci seeni personne parce que duggul seeni xol pour définir leen pour dessiner leen mais dynamique bi la dessiner képp kuy gor mun na ci bokk bi ñu jaayee Sénégalais yi dynamique boobu xamuñu parti xamuñu mouvement xamuñu association xamuñu même individu bu ay soppe ñëw ci biir coalition Yewwi Askan Wi mais dañu bàyyi ci troupeau yi ndaw yi képp ku xalaati lu bokkul ak li leader yi génn ci seen réunion ñu saaga la dama ne ba finalement ñiy jàngal politique di leen affronter ba finalement ñu leen di taxer ñoo xamante ni bii dañu leen a yabal ay missionnaire pour ñu tas Yewwi Askan Wi lu nekk yu Yewwi yi wax nañ ko képp ku am jàngat clairvoyance bu leer ci coalition Yewwi Askan Wi alors li ñu ci doon jàngat lépp tey moo nekk ni premièrement Babacar Diop la ñu jëkk a linger ci biir coalition Yewwi Askan Wi quelqu'un koo xam ni dafa chef de parti la yaru ci politique mook Barthélémy Dias bokk benn formation nekk njiital parti comme ñoom góorgóorlu ba gagné maire bu Thiès xalaatam la joxe benn yoon ñu linger ko ba finalement génnul yeewi de mais def ciy dem ak dal te ñoom xam nañu ni amul kenn ku ci am leader bu gën a honnête Babacar Diop ci ñoom amul ci kenn ku sa leader gën a sérieux wala nga ëpp courage Babacar Diop amul lu ñu ko yekkul yooyu fi dem ndànk nag ba finalement ñu bëgg ko accaparer gis nga àndub gor ñun ñëpp ñu àndandoo bu ñu demee ba foog ni man ak yow dong ñoo fi nekk Messi ak Ndey ak Neymar parce que ñu ngi commencé minimiser ñeneen ñi ci des parce que euh, ñu ngi ñàkk xam valeur li ñu sos tey ci ñoom ku ci gën a xam ay di ay euh, ay dëmbooj politique déggoo ko mu saaga déggoo ko mu xas déggoo ko mu wax dara toujours mu ngi ci benn logique boo xam ni mooy principe yi toxoon ñu créer coalition bi ba léegi booy seet leader boo xam ne musu ci tegg tànkam te loolu Mansour lu firndeel sànq li di wax muy erreur yi nga xam ni Sonko daf koy def surtout lu jëm ci wàllum communication parce que gis nañ sortie mi récemment ni mu ni mu dalee ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci ci wàllum yoon. xam nga xam nga erreur yooyu ma nga ko da da da ngeen da jël da ngeen di dellu ci jeunesse coalition Yewwi Askan Wi Aminata Lô Dieng bi mu génnee lan la wax du ma nekk ci groupe bu ñu may saaga di ma wax nu may def dama nekk chef de parti Sonko ko retiré. parce que moo nekkoon administrateur groupe de leaders ci WhatsApp Mansour Sy Djamil dafa génn principe bi tax mu génn aussi moom xamuñu ko euh, euh, Moustapha Guirassi dafa génn ci laa leen dànkaafoon ni ni li sëñ Moustapha si waxoon ni leen ànd bi kuy gox mun na cee bokk yéen a bàyyi ay gox ñuy dem de journal commenté vingt heures Sen bi mën leen yéen a ngi bàyyi ay gox mi dem gor nag bu bàyyee geddul dañ ko wanoon lu bokkul ak li ñu ko waxoon dañ ko wan lu bokkul ak li ñu ko waxoon geddul de nañu teeylu ci principe yi nga xam moom la ñuy defee coalition Yewwi Askan Wi ñu bëmax tuuti nasaat beneen alliance bu gën a pur mu gën a dangereux alliance bi mooy alliance wàllu ak Yewwi mais bu ma la déggee dafa mel ni yow da ngay jàpp ne coalition Yewwi Askan Wi maanaam mosut existe maanaam dafa nekkoon pour lëndëmal xelu askan wi wala bëtu askan wi comprendre de dama ne dañu am benn dynamique bu ñu jaay sénégalais yi c'était pas une affaire de parti ni association ni coalition dynamique dafa am lu ñu proposé woon sénégalais yi ba tax ñu fal njiital association fal njiital mouvement fal koo xam ne bokkul dara dafa ñëw rek ni jëpp ak jubbu boppam ci biir coalition Yewwi Askan yi sénégalais yi dynamique boobu la ñu gëm loolu moo tax démb bi Barth di wax waa Pastef ni ko grâce à Sonko moo tax nga fallo loolu moo tax bu Sonko di wax booy Barth ko grâce à Barth moo tax loolu moo tax Ahmed Aidara bu waxee booy Sonko booy ñenee ni ko grace à Dieu moo tax nga falo loolu mooy dëgg loolu moo tax coalition Yewwi Askan Wi tey maire Bargny militant wu pedes la bu pourtant Yewwi la demee du woon parti dynamique la ñu jaay sénégalais yi sénégalais yi gëm leen fal leen ñu yóbbu dynamique boobu ci élection euh, locale génn ci yóbbu ko élection législative créer benn alliance bu ñëpp waxul waaw ci biir coalition bi dynamique bi dynamique bi commencé yàq cest à principe la ñu jaay sénégalais principe da delluwaat ci charte coalition Yewwi Askan Wi la ñu tënkoon teg njëlbéen bi Bougane Gueye Dany di werante ak ñoom ci wàllu couleur ba tax mu tekki ndooma tànkam parce que dafa gisoon ñaari couleur ñoo ci gën a fës muy bu Pastef ak bu taxawu Ndakaaru bu Khalifa Sall ak bu Sonko bu Sonko ñu waxee Bougane ni ko affaire bi du question wu couleur parce que ñu fi nekk ñëpp doon ay chef de parti bu ki nekk indee sa couleur dootuñu xaj ci benn couleur dafay mel ni arc-en-ciel créé wuñu arc-en-ciel dynamique la ñu créé donc donc dafa am benn dafa am benn affaire doo jël principe bu sonk wala principe bu Barth wala principe bu Pur wala principe bu kenn mais dañu boole yooyu yëpp la tënk ko mu nekk benn charte ñu proposer ko Sénégalais Sénégalais yi consommé ko jox leen ay ay collectivités territoriales yu bëri yu tax coalition majoritaire bi yànq muy Benno Bokk Yaakaar mais am na ñu génn Benno Bokk Yaakaar. après élection locale yi am na même ñu ñu nekkoon ay directeur général ci nguuru Macky Sall dañu tëf ba ba démissionné nekk ay militant au Pastef après nag bu ñu demee ci seen alliance bi ñu créé waat nag laa leen ni bu lii passé balaa ñoo dem assemblée nationale ci la sikkim di fastoo bu ñu eggee assemblée nationale ci la war yi di commencé balaa 2023 di jeex masque yi dina wadd parce que am na ñoo xam ne gëmuñu gëmuñu woon dynamique bi xam nga nag loolu loo koy jàngate mooy manque de respect bi am diggante homme politique yi ak ñi leen di fal parce que tey ñoom ñi xëccoo ñépp ci biir coalition Yewwi Askan bi coalition Wallu du jàppale di jàppale waa waa waa benn Bokk Yaakaar pour ñu daaneel Aminata Touré bi ñuy bi ñuy leeral ñaata député moo war bokk Wallu ak ñaata député ñoo bokk euh, Yewwi te mu nekk ñaari coalition yu bokkul ñu def ko benn alliance nga xam ne buñu ñu génnee ci élection yi ku nekk da ngay dem ak sa ay député bopp ñu jël militant wu PDS dugal ko ci liste Yewwi jël militant wu parti bu bokk ci yi dugal ko ci liste wàllu ku nekk di laaj sa ay député amoon naa ci man amoon naa ci clash bu metti ak waa PDS parce que dama ni leen alliance bi ma gëmul woon déjà seen vingt quatre députés yi ngeen génnee nee ngeen vingt sept la yéen ngi laaj trois députés waa Yewwi yoo xam ne dañu leen dugaloon ci biir liste Yewwi ñu nekk ay député yi dañ koy commencé laaj donc euh, dëgguwul waa PDS dañ ma ci clash waaye man ku ma clash tey suba di nga ma fekk si ma la wax parce que man politique ma te damaa maase ñoom ci politique bu fekkoon damay nekk acteur ci ñu fi indi alternance jële fi Abdoulaye Wade Birahim xam na ci dara parce que ñun dong ñoo nekkoon rajo bi jëkk a def direct jour événement 23 yi muy 23 23 juin donc ñun ay acteurs lañu ci alternance boobu dañu xam politique ni muy doxee Birahim mu ngi nii alors bu ñu agsee situation boobu nag ba gisatuñu ba gisatuñu dynamique bi ñu jaayoon Sénégal yi mais bu fekkee da nga féetee Sénégal yi da nga koy dénoncé te loolu mooy li am tey te gis nga clash moo am diggante Barth ak Sonko non des na de des na de des na yeneen yeneen dina tombé waat nañ ci kanam lamin balaa ngay ñëw Birahim procès bi démb ñu amal ko te te Sonko teewul ñu bari jàpp nañu peut-être bu teewoon euh, lii lii tukkee ci àtte boobu mën na wute. ama ci wàllug appel ci wàllug